ak saxaabaam yi ak képp koo xam ne mu ngi góorgóorlu ci moy ci li nga xam ne moom la fi yonent bi bàyyi ba bis benn ci taxaw ginnaaw loolu ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam te asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ñaan borom bi subhaanahu wa taala borom bi barkeelal jotaay bi boole ko ci jotaay yi nga xam ne dana ko puukare woo moo ki malaayikaam yi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala itam yàlla bañ a def jotaay bi mu nekk suñu mujj daje thème bi nga xam ne dinañ ko jéem a gaaral moom mooy xayaatu cheikh Mouhamad Nasiruddin al Albani rahmatullahi alayhi muy dund benn kuuy ci kuuyu lislaam yi nga xam ne képp kuy jàngkat xëy na mënu koo bañ a réere muy Mouhamad Nasiruddin al Albani mbokk mi nga xam ne moom moo ñu koy gaaral muy al oustaz Niang Mbaye bu dee nekk li dund cheikh bi xëy na dana ci ëpp solo méthode alquran lu ma namm ci méthode alquran lu mel ne suuratul Huud yàlla ba mu nettalee histoire yonent yi tàmbalee ko Nuux ba muy jeexal histoire am dafa ne tilka min ambaati rusul ba muy jeexal ci histoire bi dafa ne dafa ne yow yonent bi ñu ngi lay nettali wala la nga xam ne moom lañ la nettali nuuhiha ilayka ma kunta taalamuha anta wala qawmuka min qable hada fasbir inna al aqibata lil muttaqin kon foofu le mu ngi ñuy bàyyiloo xel li ñu mën a tiire ci histoire ba nga xam ne moom la ñu nettali noonu le boo ñëwee itam suuratu yusuf ba muy résumé histoire bi innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajra al muhsinina bari na kon taxawaay yu demee noonu ci quran kon ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yombal mbokk mi bu baax a baax fecc làmmiñam ba mën ñoo jariñ ca la nga xam ne moom la ñu préparé di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla wërsëgal ñu dégg ak topp ñu xerewlu ko dalal ko bu baax a baax a baax xëy na yàlla mën naa def njariñ juddoo ci te dana ci juddoo insha allah kon fal yatafaddal mashkura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور القرآن نور بالقرآن قلوب عباده المؤمنين وشرح به صدور أصحابه وجعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فحياتهم نور وموتهم ظلما مصابيح الدجى في طريق الهدى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار ما كان حديثا يفترى فما أحوج الأمة الإسلامية اليوم خاصة الشباب منهم إلى مثل هؤلاء في عصر تلاطمت فيه أمواج المذاهب الهدام وكثر فيه دعاة البدعة والفتنة والضلالة وأصحاب الشبه الذين يلبسون عليهم دينهم بستار السنة ومن تلكم الأئمة العلامة الألباني رحم الله الجميع ووالله لقد جئتكم كالحيران في موضوعكم هذا بماذا أبدأ عند التحدث عن الألباني عن شيخ قضى أكثر من ثلثي قرن من عمره في العلم والدعوة أعن جوده أتحدث أم عن علمه وفقهه أعن ورعه أتحدث أم عن إحسانه إلى الناس ورقة قلبه أعن صبره أتحدث أم عن عفته وتقواه أعن تمكنه في علم الحديث أتحدث أم عن مصنفاته ومؤلفاته أعن دعوته أتحدث أم عن تحقيقاته وتعليقاته ووالله لا يسعني إلا أن أقول كما قال الإمام عبد الرزاق الحمد يرسي شيخ الألباني رحمه الله قائلا ما لي أراك تباري الشمس إمعانا الموت يخفي وتزهو اليوم إعلانا في قصيدة طويلة إلى أن قال في أواخره أهل الحديث على الأعصار جنتها وكنت في عصرنا عدلا ورضوانا هذا هو الدين يعلى- يعلي شأن حامله كانوا من الروم أو فرسا وألبانا noo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala noo ngi julli ci ab yonente muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi seede ni képp ko yàlla subhanahu wa taala gindi na ko kooku de aji gindeeku lu gindeeku faaw te dara mënatu koo dëngalooti waane sunu borom ku mu bàyyee ak boppam ba mu sànk kookee day ku sànku la ku jëre yërëm la ku jëre tiit la ci ak mujjam noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu boole ñu ci jaamam yi muy gindi noo ngi sant sunu borom dëgg-dëgg cant ndax ku yeyoo la mu ak cant fil ula wal axira noo ngi koy sant ci mboolem xéewal yi nga xam ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala dañul di nu ko defal moo xam ci lu feeñ ak ci lu noo ngi koy sant ci xéewalu ngëm di ko sant ci xéewalu imaan di ko sant ci xéewalu gindéeku noo ngi koy sant ci xéewalu alquran ak yónni gi mu yónni muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci noo ngi koy sant ci mbooleen xéewal yi noonu sunu borom day subhanahu wa taala dafa bokk ci xéewaleeg alquran mooy borom bi daf koo def mu nekk lumière niitu buy leeral xolu ñi nga xam ni ñoo ñi gëm sunu borom subhanahu wa taala sunu borom def alquran mu nekk leer ci dënd ñi nga xam ni ñoo wattu alquran ak xam ko di ko jëfe waaye sunu borom bokk na ci ay tawfiqam mu dimbaleenu jamono bu ne ci jamono yi sunu borom dana fi bàyyi ay desit ci ay borom yi xam-xam ak ay nit yu baax ay nit yoo xam ni yàlla subhanahu wa taala moo leen tàggat defar leen ba du baax ak lu jamono jaxasoo jaxasoo ñooñu danañ fi des nekk ay benn benn ak lu nu néew néew moom danañ fi des ñooñu day bokk na ci seeni taxawaay ci kaw suuf dañuy dimbandikoo téere yàlla bi ngir ñi nga xam ne seeni xol dee na ci ñàkk a jariñoo alquran ñu fexe ba duggalaatal leen seeni xol bokk na ci seeni taxawaay mooy ñi nga xam ne seeni bët dafa silmaxa woon ba gis njub yomb leen ñu jaar ci mbooy bi di daw ay xel ñoom ñu jaar ca geneen mbooy dogaale leen gindi leen ci alquran dundal leen ginnaaw bu nu faatoo bokk na ci seeni taxawaay mooy bariwaana ñoo xam ni iblis mën na leen ba màng leen ba yeew leen ci biir këram waaye teewul rek ñoom ñu def ay effort ba rëcc loolu bari waa na ku sànq ba jaar ci dànd foy foy bi di daw nekk koo xam ne giddeeku sori na ko waaye borom bi def tawfiq ci seeni effort kooka dal di jubaat ñooñu day dëgg-dëgg ñun lépp danañ ànd yëg ni seen ak dund leer la ñeel kaw suuf waaye seen faatu day lëndëm lay jural kaw suuf làmp yu leer lañ ci yoonu njub moo tax suñu borom di misaal ñooñee ca yonent yi ak ñu dut ñoom nan ñu laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil absar ñii day toog di nettali seeni nettali ak fàttaliku ak waaru mi ngi ci ñeel ñi nga xam ni ñoom wax duñu ko jël rek yamale ko ci kaw dégg-dégg nopp waaye dañ koy dugal ci xol xool ana yan njàngale ci wàllu yar ak defaru moo génnee ci xisas yi comme ni ko bokk bu jullee sànq sunu borom ñu lii de nekkut ay nettali yu ñuy sos muy nettali yi mu doon nettali yeneen ci yàlla yi ci alquran ak ñi nga xam ne ñooy ñi baaxoon doon leen roy kon tey xeetu lislaam yi aajowoo nañ lool ay niit kat yu mel nii rawatina ndaw ñi ci jamono joo xam ni bari na lool ay kuréel ak i nit ak ñu ñuy wooye sax ay boromi xam-xam di wax ay mbir yoo xam ne yooye day sànke la shakk te ràjjee ko yombul lu dul borom xam-xam yu mel noonu ñoo mën a taxaw yor seen xalima di bind di wasaare yor seen làmmoñ di def ay kaset di wasaare di def ay muxaadaraat ay xalaqaat yoo xam ne ilmiya la ngir yooyee mën a leer ndaw ñi mën a gindeeku mën a firinti bari waa dañuy woote ci bidaa ñii di woote ci fitna ñii di woote ci cànkute ñeeya ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a raglu mooy ñi nga xam ni ñoom ay lënt am lënt lan yore moo xam ni mbubbam sunna lan ko solal koo xam ni dafa yorum lënt waaye lëntam ma pour mu nax la ca dafa yomb lool ndax dafa seen mbubb ma nga xam ni saa bu séenee ko ko sol dañuy jàpp ni sunnaay bëgg a ñëw mu jël mbubb moo ma solal ko lëntam moomee nga xamante ni dañuy lëntal nit ñi ci sitaaru sunna kon day am ay nitkat yu mel noonee jaadu na ñu xam ñooñee seen dund ak effort yu rëy yi nga xam ni def nañ ko surtout nag mbokk mi dafa junj sànq tom boo xam mën naa ne sax man moo ma tax a jukkoon du neextali rek dund diw mu jeex déedéet fàttalikuuma kenn kun masa jàngale ak dundaw moo xam ci saxaaba ya ba ci kii nga xam ni dund nañu ak moom ci ay at lu dul la cay nekk sunu maqsad mooy génnee al fawaidu tarbawiya min xayaati hada rajul njàngat yi nga xam ne ci wàllu yar ak defaru bakkan moo xam ci njub moo xam ci dëgg moo xam ci sellal moo xam ci xam-xam fi kulli jawaay loola mooy gën a nekk suñu yitte wala si leneen ndax nekk li dund nit rek yéemu loolu mu taxuloo jóg ci kenn xatta wala bu doon saxaaba bokk na ci niitkat yooyu al allaama cheikh Nasruddin al Albani rahimahullah rahmatan wasia wa an jamii al ulama dëgg-dëgg dafa mel ni mbokk yi nu sant waxtaan wu mel nii sas na nu sas wu rëy tey dañ leen di sant yàlla santal yàlla subhanahu wa taala dañuy sant yàlla di leen ñaanal yàlla dafa leen tawfiq ndax dimbalee nañ nu lu bare bare bare bare dinaa koy nettali mbokk yi nii kaay jàngal ñoom kaay defal na waxtaan a bokk yam bu dee jaar na yoon wam war a jaar man dama gëm ni kin ko def loo mooy gën a jariñu niñ koy defal ndax dinañ ko jàngaloo ci par force yërloo ko lum mësul yër ak lum gëj a yër déglu loo ko lum mësul déglu ak lum gëj a déglu kon loolee tawfiiku yàlla subhaanahu wa taala dañ koy ñaanale mbokk ñi nga xam ni ñoom ñoo xalaat jotaay bu mel ni yàlla yàlla dafa leen tawfiik defal ko ñëpp nu mel ni dëgg-dëgg mawdoo bi ñu ko joxee dañ noo gërëm loo mawdoo bu mel ni dëgg-dëgg li nuy yëg mooy bi ñu ko joxee dañ noo gërëm loo gërëm loo gi mooy ku toll ni Cheikh Nasruddin al Albani ci ñi ko xam muy góor goo xam ni dund na lu tolloog sulusay xarn benn siècle boo ko xaajee ñetti xaaj siècle muy téeméeri at boo ko xaajee ñetti xaaj ñaar ya téeméeri at boo ko séddalee ñetti yoon ñetti xaaj nga jël ñaar yi nga xam ne ëpp na juróom benn fukki at ak lu topp góor goo xam ni dund na lu ëpp sittiina aaman aw sabiina aaman yoo xam ni daf ko doon jihaad fii nu sotti sunna juróom benn fukki at yoo xam ne yii juróom benn fukki at amut lu nuy werante diggante jàng jàngale waare conférence yi demee noonu ci la ak taalif yu bari gërëm gi leen ko yóbbee mooy dundut xam kii bu nu waree waxtaanee dundam ci waxtu yu gàtt yi nga xam ne tey kenn amul jot nit ñi amul jot waxtu yu gàtt yi nuy jot dañoo xamut lan lan ca war a wax ndax bu ndikkee di waxtaanee dund ak góor goo xam ne lu toll nii juróom-ñaar fukki at wala lu ko jege def na ko ci liggéeyal daaw ak sunna bi ndax kooku bu ndikkee na mu tabee woon di joxe nga xam ne boo ca doon waxtaan rek mën naa jël suñu waxtu lépp ndax ca loolu la ñuy waxtaan wala nag dañuy waxtaan ca xam-xamam bu xóot ba ak dégg gu mu déggoo fekk nga xam ni tomb yooyee boo ca duggoon mën naa jël suñu waxtu lépp doo xam nag fegu gi mu fegu woon ba lenn lu amul lënt bëgg ko woon a laal wala mu jege ca nga war a wax wala rafetal gi mu doon rafetal jëme ci nit ñi ak tooy boo xam ni ab xolam tooyoon na ko ci yàlla gaaw a jooy lool doo xam ci yii ban nga ca war a wax te benn boo ca war a wax rek mën ngaa jël ci waxtu bi rajo doo xam nag da ngaa war a wax ci muñ gi mënoon a muñ ni mu mënee woon a muñ doo xam ndax fegu gi mu fegu woon ak ragal gi mu ragaloon yàlla ci ngay wax damaa xamul ndax damay wax ci jekku koo xam ne jekku woon na ko xam-xamu xadis ba boo ko dee xool dafay mel ni ba muy nàmp soowam xadis la doon nàmp ndax ca lañ war a wax wala dañuy wax ci taalifam yu bari yi ak mbindam yu yaatu yu téeréem yu bari damaa xamul ndax daawa bi mu doon daawa ci àddina bi war ngal kap ca lañ war a wax wala ndax dañuy wax ci taxqiqaat yi bu def ak taaliqaat yi dëgg-dëgg xamee su benn ci yii benn lañ ci war a waxtaane ndax benn boo ci jël rek jël na ci suñu waxtu lépp moo tax ma ni amut lenn lu mën a wax lu dul la Cheikh Abdurazaq Alhamd bi Cheikh Nasir Faato rahimahullah mu di ko defal ay seede di ko tagg bokk na ca lam ko doon wax mooy maari araka tubaari shamsa imaana الموت يخفي وتزهو اليوم إعلانا من من دما خمس يو ألباني لن موتك رك ما جسلا دنگا كويبا كويباي في يك تي دفا ملني دنگاي نيرو جنت بي تي كويباي كويبا كو لم تي نام مانام سوري تي خم خم اك مانا وسار دينه با جيكي نا داي لو رك لا سنام من دي داي لاق نيت ngir du fàtte ko waaye yow dafa mel ni sax faatu dana gën a siiwal nag faf ñu gën laa xam xasida bu gudd la maana bañ a gudd tënk ca loola rek waaye ba muy jeexal lu mu wax mu ni ahdul xadiiti ala al asaari jannatu mu ni dëkk-dëkk borom xam-xami xadiit yi boo demee ci dëkk dëkkaat yi boo demee ci àll bi di wuti tool boo demee ci àll bi tool yi gën a naat yi gën a baax yan soxla da ngay fekk ni mooy borom xam-xam xadis mu ne wa kunta fi asrina adnan wa ridwana àjjana da la ñor àjjana ju baax ñooy borom xam-xam xadis waaye mu ne bu dee yow nag moom xam naa dañ naa la xanaa boog yaay àddina wala yaay aljanna ridwana ndax xóot boo xam ne Cheikh Nasir xóotoon na ko ci xam-xam bokk na ca ne mu ne hada diinu ah mu ne hada huwa diin dëgg-dëgg lii de mooy diine képp koo xam ni yenu na drapeau l'islam ak di ko wasaare rek ay mbiram nii rek la mën a mel mu ne kaanu min arruumi moo xam nationalité rom la dëkk ab romee la moo xam waa perse la waa albana moo xam albane la dëkk muy albania di réewu Cheikh Nasir Albani foo mën a dëkk aajut laajut nga nekk rek ab arab waaye lim laaj rek mooy nga yenu drapeau bi islam di wasaare su loolaa tax nu ni nañ jéem ah morceau yi nga xam ni benn bu ci nekk tudd nañ ko ñu laal ci as ndogit laal allah subhanahu wa taala mu defal lu tawfiq ak jàppandal te ñoo ngi koy ñaan ci bind bi mu nekk bind boo xam ni dafay nekk ab soññaat ñeel ndaw ñi tey ñu xam ni lu mel ni lii nuy netti li moo nuy xaar ñu ndaw moo tax baxte bi ñëw ko tënk ci juróom ñetti tomb su nekkee waxtu may nañu insha allah waxtu wu ci nekk wala tomb bu ci nekk dañuy moros rek waaye mu ne suma tudd lépp bi ci njëkk mooy attaarifu bil imaami nasaban wa maskanan wa mawlidan wa shababa xamle kan mooy Cheikh Nasirul Albani aw askanam fa mu dëkkoon fa mu juddoo ak lenn ci tàmmalit ndawam ñaareelu tomb mooy tatimatu shababi wa talabuhu lil ilmi wa dikru baadi masaayixi wa tabaxurihi fi ilmi alxadis lenn li mottali ak ndawam ak ni mu doon sàkkoo xam-xam tudd lenn ci ay sëriñam tuddaale xóot koo xam ne xóotoon na ko ci xam-xam xadis ñetteelu tam sifatuhu wa hadiyuhu fi nafsi wa xifduhu li waqti wa manhaju melokaan bi ko yàlla joxoon nan la doon dundee nan la doon waxtoo waxtoom ak lan moo nekkoon manhajam ñeenteel tam mooy axlaaqul karim min sabrin wa wara'in wa qanaatin wa ixlaasin wa ghayr lenn ci ay jikkoom yu tedd yi ci muñ fegu doylu sellal ak yeneen yi ngeen xam-xam ngeen ko ci jikko yàlla juróomeel bi zikru baadu mihani lenn ci ay natt yoo xam ni mooy kama huwa sunnatullah ala alamin xaasatan al ulama minhum lim doon nattoo borom xam-xam yi te nga xam ne moom jot na ci am salaf ci dundam juróom benneel mooy dikru shay'in min musannafaati tudd lenn ci ay taalifam juróom-ñaareel mooy dikru ayaamihi al axir wa wafaat tudd lenn ci bisam yu mujj ci àddina ak faatoo juróom-ñetteel bi ma tëjee ko sanaa'ul ulamaai alayhi lan la borom xam-xam yi def muy ay seede ci moom Cheikh Nasir bu mu faatoo kon aqulu mustainan billahi subhanahu wa taala tomb bu njëkk bi di at taarif bi Cheikh Nasir xamle kan mooy Cheikh Albani ci wàllu askanam ak lu ko wund foofu dañuy wax ni huwa al imaamu xaqan wa cheikhu lislami fi asrihi sidqan إمام أهل الحديث والأثر أبي عبد الرحمن وهو أكبر أبنائه محمد ناصر الدين ابن الحاج نوح النجاتي ابن آدم الملقب بالألباني نسبة إلى بلده شيخ ناصر الألباني wax dëgg yàlla amul amul amul lu féete kaw la imam aldahabi doon wax ba muy tarjamal imam ahmad ibn hanbal mu ne huwa alimaamu xaqan wa cheikhu lislaami sidqan dëgg dëgg imam dée ngi nii ju mag cheikhu lislaam bu mag bu kenn du werante ci jamono imam ci ahlul xadis ak atar abi abdirahman nga xam ne dàkkantal la wun ko xamee boo xoolee leen ci ay téere nga gis abi abdurahman muhammad nasir bu albani abdurahman moo nekkoon taaw muhammad nasiruddin papa mi ngi tudd alxaaji nuux alxaaji nuux najaati ibni adam almulaqab min albani kon alxaaji nuux ibni adam mooy papa yi cheikh nasiruddin al albani rahimahullah dana amul seetlu ki mën a seetlu ni waaw aw askanam de daanaka ni ñuy defal bu ñuy tarjamaal borom xam-xam yi defuñu ko ci Cheikh Nasir mooy doomu jiw di doomu jiw guddalaw askanam daanaka léeg-léeg xaw du ko jàpp ndax am yeneen yu solo yu ñu war a wax loolu tax na tudd ma ko beneen bi ci des mooy Cheikh Nasir diin al Albani lu jëm ci wàllu askanam ak tarjamaal ko moom daa bokkul woon ci yim daan farataal sax di ko nettali wala di ko wax rawatina muy nettali ay jaar jaaram am na waaye néew na lu mu ko doon def kenn ci ndongoom yi gën a siiw te tey jii jekk loolu xam-xamu xadiis wax dëgg yàlla li ay ndongoom seede bi mu faatoo mooy ku ko doon da dana jafe doonte ndongoom yépp toog nañ te sees bi mu doon toog waaye bokk na ci ñi ko gën a jege al cheikh abu isxaaq al xuwayni al basri abu isxaaq mooy nettali mu ni 1986 muy njàlbee nag gise gu ma gisee Cheikh Nasir donc doon la ko dégg di liir ay téere nee na dafa dem ordon seet Cheikh Nasir al Albani mu ni bi mu ñëwee jonjonteeg moom gis na kéemaan moo tax mu jàpp ni kii daal warees naa def ay mbind ay njàngale ci dundam mu sàkku Cheikh Nasir ni ko dama bëgg nga jox ma ndigal waxal ma lenn ci saw askan ak sa taarix ak say jaar-jaar ma defal la ko tarjama Cheikh Nasir ni ko ah loolu de amul solo loolu jëru ko abi isxaq xam na ni ahan kay jar na ko tawaado rek a tax Cheikh Albani wax loolu waaye mu ni xaddiwu ma tàyyiwu ma toogaatub diir rek ma sàkkuwaat ci moom mu defal ma lu mel ni la ma ko sox la ma ko sàkkuwoo nee na cheikh bi ne ko ah man de sama dund gi lu ci jar tarjama da cee amul subhanallah sama dund gi lu ci jar tarjama da cee amut abi isxaq mu ne xaajuma ba léegi xam naa ne jar na ko tawaadu a tax muy wax mu ne dama koo toppa toppa topp ba rus ba mujj na mu ne ma insha allah sawfa ujiba dinaa la tontu ci li ma laaj sawfa jooja nag Cheikh Nasir jàppati ko saa bu ko nee rek mu ne ma sawfa insha allah maanaam rek ngir bëgg na bu mu am subhanallah abi isxaq nee na ma topp ci sawfa ji ma leen rek saa su nee ma waaw dinaa la ci wuyu rek ma ni saa su ma jekkoo rek laajaat ko pare mu ni ba ma demee ba lakkal ko nag wit ci la doog ma tontu ànd ak xam naa ni ba may tontu ñàkk pexe sax waaye gën a ma moo tax abi isxaaq alxawayni def na juróomi kase mi ngi ko def ci ay laaj ki tontu muy laaj Cheikh Nasir Cheikh Nasir di tontu fu mu juddoo man at la noo jàngee ba lu baree baree bari ci dundam assurité yooyu am na ay borom xam-xam sax yu ko sotti ci ay téere abi isxaaq mu ni dama kaa laaj ay laaj yu baree bari bokk na ci ak juddoo waaye ma wax la rek balay loolu Cheikh Nasir Albani mi ngi juddu ci Ashquuda dëkk bu ñuy wax Ashquuda ca Albanie nga xam ne moo nekkoon capitalu Albanie am nay jamono nag soppi nañ ko waaye jamono ji nga xam ne Cheikh Nasir ma nga doon dund dëkk boobu moo nekkoon capital loola mi ngi tombee 1322 hijri alf wa salaasumia wa snayn wa salaasin 1332 hijri loola buñ ko xoolee ci ati nasaraan yi mi ngi tombeeg 1914 moo tax Cheikh Nasr Albani bi ko Abu Ishaq laajee ca kaset yooyu ni ko waaw ndax yow mën nga noo wax man at mooy at mi nga judd mu ne ko amul benn sukkandikukaay mun mën a sukkandiku ba wax at man judd lu tut carte d'identité wala passeport bi mu doon yore wala këyit yu ndaw yooyu nga xamante nii nit ki da koy aajoo ci dundam mu ne ko yooye dama buñ ca sukkandikoo nga xam ne ci datut nasaraan lañ ko date mu ne 1914 moo ca nekk loolu Cheikh Nasir tontu ca kaset yooyu jamono jooju benn waaye bu ñuy wax Ahmed Zourou moo jiite woon Albanie mu nekkoon koo xam ne ku doyoon waar la ndax am na ay jëf-jëf yu mu def loola sabab la ci bàyyi Albanie génne Albanie ca dëkk ba dinaa ko leeral ci kanam insha allah waaye ci kéemaani yàlla yi mooy damaa junj sànq na jamono bu ne sunu borom day tàggat ay borom yi xam-xam yoo xam ni ay niitkat la ñuy doon moo ne am na ñuy faatu dafa am ñuy faatu junju naa sànq ni faatu kenn ca ñooñe lëndëm ca lay jur comme ni juddu kenn ci ñooñe di jure ci leer dafa bokk ci kéemaani yàlla yu nu seet at mii di 1914 di 1332 hijri nga xam ne ci la Cheikh Nasirul Albani juddoo ci at mooma ci la borom xam-xam bu mel ni Cheikh Nasir faatu muy Jamaluddin Alqasimi Jamaluddin Alqasimi ak Dimashqi Ashami borom xam-xam bu mag la woon nga xam ne mooy Albani balaa Albani fee ci fa mu dëkk at mooma ca la faatu subhanallah saam di réewam xam-xam Jamaluddin Alqasimi di borom xam-xam bu mag faatu ca Saam ci réewam xam-xam jurub lëndëm sunu borom def ab waay boo xam ne ci biir tubaab ya ci digg réew Europe ya fa la juddoo war ko remplacer kiimaan yàlla yi dox ba Cheikh Nasir muy jàng ci wala boog jariñu ci kenn ci ndongo yi kii faatu ci at mooma muy Muhammad Bahjat al Bayda nga xam ne Cheikh Nasir am na ñuy wax ni jàng na ci moom ci lenn ci kàggu yi ngay gis waaye bi ko ab isxaaq laaj bi ndax jàng na ci moom dañu ko déedéet doon na teewee xal ay xalaqaatam rek waaye toogul na ka ndongo buy jàng ci moom di jariñ ci moom doon na jàng lu mel ni adab ak yi demee noona moom Mouhamad Bahjat al Baytar di ndongal Jamal Din al Qasim yi nga xam ne ci at mi Cheikh Nasir juddoo ca la faatu mu mel ni kéemaanu yàlla daa feeñ foofu ki faat ci digg réewi arab yi di réewu xam-xam di borom xam-xam mu mel ni ki ko war a remplace ci digg réewi Europe yi fa la wala juddu muy kéemaan yàlla muy kon Cheikh Nasruddin Albani papaam di alxaaji Nuux bokkoon na ci borom xam-xam yi xanafi yi gën a mag nekk ci ngiram Abi Xanifa ci waxtu woowu nga xam ni Ahmad Zuuxu moo nekkoon njiit la xam ni toxal nañ dégg ci kaset déglu naa ci kaset gis tamit ci bind Ali Harabi muy wax ni néew na lu ma daan dégg Cheikh Nasir ibn Ahmad Zoho wala mu def az alladi aza allahu qalba loolu moom wax na ko ci kaset bind na ko ci téere ni saa bu ko Cheikh Nasir tudd na aza alladi aza allahu qalba Ahmad Zoho alladi aza allahu qalba Ahmad Zoho mi nga xam ne yàlla daa jekkalu xolam ak mbokk noonu la ko Cheikh Nasir doon waxee jamono jooju bi muy jiite albaniya dafa falu rek fitna tàmbalee tàkk bi ci kaw bi boobu Cheikh Nasir wala su tuuti la bu bari juróomee tam sax xanaa ma caay caay gi yàgg na ndekete yemul ca loola daf doon tere topp gi nga xam ne dañ koy topp borom xam-xam yi nga xam ni mbooloom xam nga yi borom xam-xam moom saa bu ko mbooloo toppee rek daanaka ñi nga xam ne ñooy noonu lislaam yi tàmbalee tiit bokk na ca yooya mooy soppi la def doxalinu àtte yi di àtte nit ñi ci loo xam ne loola bokkut ak àtte yi yàlla wàcc alquran yi alqawanin la wada yi alkaafira Cheikh Nasir mooy nettali mu ni ci la papaam alxaaji Nuux mel ni ku gen mbenn cee mbon mbon tàmbalee muur dëkk bi mu xam ni fii de bu fi naree dund ak njabootam moom bu mu ceet njabootam duñ mucc foofa fekk na moom ay yooni yooni yoon dem na Makka dem na Sham tukki na lu bari jàng na jàngale na xam na Sham ak ngëneel yi nga xam ni yonent yàlla bu wax na ko ci sallallahu alayhi wa sallam di dëkk bu barkeel mu ni papaam daal di dogu ci toxal njaboot gi yépp dem ak ñoom Sham muy Dimashq muy dëkk bu am solo boo xam ni Cheikh Nasir sax taalif na téere bokk na ci taalifam di wax ngëneel yi nga xam ni am na ko moom dëkk boobu di Cham ak dëkk Cheikh Nasir jamono jooju mi ngi amoon juróom-ñeent ci ay at kon ndaw na lool bi muy ànd ak papaam di génn di dem Cham papaam buub njaboot bi yépp Cheikh Nasir Albani ca la bokk kon ci tënk bu gën a gàtt mën naa ne loolu mooy tomb bu njëkk bi ci ñaareelu tomb ci la ñuy leeral xatibatu shabaab yi mottalik ndawam ak nu mu doon tàkkoo xam-xam moom Cheikh Nasir ak lenn ci ay suyuuxam ak ni mu géejoo woon ci xam-xam comme ni ngeen ko xamee ci Askuda di capitalu Albanie ci digg Europe Europe war ngal kap ci diggam ci Albanie nga xam ni fa la Cheikh Nasir juddoo juddoo na ci famille boo xam ne famille bu néew doole la baaye la shakka annahu kaana faqira du woon ku am ab sëriñ daara la woon rek comme ni ñu ko waxee amut lu bari ci am ami àddina yi moom comme ni nga xam ne loolu mooy sunna yàlla subhanahu wa taala ci li ëpp ci borom xam-xam yi yaakaar naa ci bunt yu mel nii ci tarjamaal saxaaba yi borom xam-xam yi ku mel ni al imam ahmad ibn hanbal nga xam ne jot nañ koo defal tarjama kadalika nii la woon kenn rek lan jot a defal tarjama koo xam ne dëgg yàlla bàyyam moom borom alal piir la woon muy alxaafid ibn xajar bokk na ci li borom xam-xam yi wax ni moo ko may sax géeju ci xam-xam ak bari kàggu mooy bàyyam da ko bàyyi alal ju bare bare bare dëgg yàlla ñàkkul woon téere boo ñàkk ca jamono nga xam ni maxtuutam sax am ko jafe la waxuma laa ñu naan téere bu ñuy moon la boo demee Cheikh Nasir Cheikh Ibn Hajar fekk na am na Cheikh Nasir noonu la juddoo nekk koo xam ni amut dara bàyyi mit ka daari sori lool ay koom-koom ndax xam ngeen ni judd ci famille bu am dafay def ay jeexintal yoo xam ne ay salbiyaat la boo ko yëgee ak boo ko yëgut xatta walaw boo doon góorgóorlu ci suba juddu ci famille bu am dëgg dëgg dëgg dëgg bu la yàlla defalul tawfiq dafay def ay salbiyaat doonte nag am na ijabiyaat ay mbaax mbaax am na ci yu bari am na ci jekku-jekku yu bari waaye am na ci ay salbiyaat yoo xam ni bari na dana la topp boo ko yëgee ak boo ko yëgut fekk am am bee ko def ci yow jeexin walit boo ñàkkee di xiif di mar di sonn di jaaxle dana la ci yeneen i jeexintal yoo xam ne dëggal ijaabiyaat lay jël ci doonte dana am salbiyaat alxaaji nuux abu cheikh nasir albani borom xam-xam bu mag la woon université yi l'islam yi amoon ca jamonoom ci ak dawla al osmani yi nga xam mi ngi nekkoon fi ñuy wax al astana muy ak istanbul fi ñu tuddee istanbul tey nga xam ni ak dawla lu osmaan yi amoon na fa doole lool ba ay université islam ne fa ca la bàyyi Cheikh Nasir génnee nekk borom xam-xam bu mag waaye nag nekkoon ci ngiram abi xanifa dellu si réewam di jàngale sunna di jàngale xam-xam nekk imam xóot lool ci fiqhul ahnaam mujj na dem na ba ay nit yu bari dañuy génne ca àll ba ñëw di jàng ci papay Cheikh Nasir Albani xam ngeen am na ñaar ñu siiw ñu ngeen xam kenn kaa ngi tudd Cheikh Shuaib al Arnaout kenn ki ngi tudd Abdul Qadir al Arnaout ah Cheikh Shuaib al Arnaout ci ndongay papay Albani la moom jàng na ci moom lu bari bari bari sax bari lu bari jàng na ko kon Cheikh Nasir mooy nettali mu ni bi ñuy suñu papa di ëgg di ci Saam muy Dimashq ndeysaan booba dafay nettali nettali bu reelu mu ni boo bindee alxamsa wala ab tamsa mu ni xàmmeeku ma ban moo ciy xam xam nga ab tamsa bi too wal xamsa bil xaa xam nga dañoo nuroo ab tamsa wal xamsa mu ni ñaari baat yi mënuma ko woon a ràññatle pour wane ne xamul woon dara ci arab mu ni ñu tuddee al alif ak naft ya mu ni mënuma leen a ràññee ak naft ya yet lay doon yet la sëriñ si buñ daan jàng dañ daan yore benn yet la la amoon nañ koy soxla mu ne yet bu gudd woo xam nga yet day taxaw alif day taxaw dañu nuroo mu ne alif ak yet sax mënuma kaa xàmmee boobu xamul dara la la bëgg a wax moom ci arab donte bàyyam nag imaamu jàkka la woon borom xam-xam la waaye sonnatu woon lool ca jamono joojee ñi nekk ci albania ca jàngal ay doom donte mujj na soppeeku Cheikh Nasir Albani tàmbali ci école boo xam ni jamail isaab al xayriya ñoo ko taxawaloon foofa Cheikh Nasir dem ca di jàng foofee làkku arab di jàngale tamit diine mooy nettali sax li ko gën a dimbale mooy jonjoog yi mu doon jonjoog tullaab yi nga xam ni ay arab lan di wax ay arab muy làkkanteeg ñoom di bërbëree ko jubal ko daanu mu ne loola dem na ba tax mu tàmbalee nettali bi tuuti làkku arab xam ngeen ni tubaab fini la soxna si tubaab fiir comme ni mu ko mën a waxee moo tax léeg-léeg boo dégloo lenn ci ay affaire baam am na yenn baat yoo xam ni da koy firi ba noppi mu ne xanaa lii de man mi nga xamante ni sax bokkuma ci arab yi du wax arab sax xanaa wax dëgg yàlla su dee maa ko xam ñëpp war nañ kaa xam mais da ngay dégg ci ay kanatam mu wax lu mel di wane ni bokku ci xeetu arab Cheikh Nasir yàlla def mu tàmbalee jàng ci école boobu ci atam yu ndaw yooyee rek alaamatul nubuwwa tàmbalee feeñ ci moom mooy mandarga yeew ci ak ubbeeku ci xam-xam loolu lan moo ciy firnde mooy Cheikh Nasir al Albani cycle bi nit kii def pour am certificat ñaata la toll ay ay six ans ñeenti at la ko def rek am certificat jàll bokk na ci mandarga yi waaye nit ku yewwoon la sëriñ bi leen doon jàngal dafa seetlu woon ci biir classe bi masala bu ñuy i'raab loo ci wàllu naxwu wala ñuy laaj ci lenn da ngay gis ni Cheikh Nasir lay mujjee laaj diw loo ci xam yow i'raabal yow loo ci xam i'raabal Cheikh Nasir lay mujjee laaj lu tax ndax xamoon na ni moom amut loo koy laaj lu dul yàlla dina ko dimbale mu nekk xam tawfiq mu xam mu ne su ko defee léeg-léeg bu ñu laajee masala surtout wàllu i'raab kenn xamul ñu ne Cheikh Nasir loo ci xam mu tontu ustaaz dina mis aybun aleykum yéen day lii gàcce la ci yéen ayuha suuri yéen yéen waa Dimash nekk ay arab ah kii nga xam ni nekkul arab ñu laaj ko mu ton dana la hada arnauti arnaut Cheikh Nasir day nettali mu ni moom lañ gënoon a xam ci albania mu ni bi mu siiwee ci lañ koy wax Cheikh Nasir al albani waaye al arnauti lañ ko wax comme ni ngay dégg Shuaib arnaut Abdul Qadir arnaut lu tax ay faram-fàcce yu xóot ma nga te doonte xóotut lool sax ci xeet wi xeet wan bokk ñoom dañ leen wax al arnaut moom lañ ko wax Cheikh Nasir bi muy jàng ba mu nee ba nekk mag nag ci la commencé siiw al siiwee al albani mu ne hada arnawuti kii nga xam ne arnawut la ah moom mu mën a xam laaj ba tontu ko yéen xamu ko misaa yu mën ko lii de gàcce la ci yéen mu ne sëñ bi dañ doon xasee loolu ci biir classe kon loolu mandarga yi wane ni ku xóotoon la ci tàmbali njàngam wala ku yeewu woon la ku yàlla defal ay tawfiqaat wa kadalika Cheikh Nasir al Albani foofu la continuer jàng ba cycle secondaire bi mu jeexee daanaka rek mën naa ne daanaka rek laa mën a wax fa la njàngum école am dakkee kon ay bërëbeeg ay bac ak ay licence ak ay maîtrise ak ay doctorat jotu caa yegg foofu nag danaa fi amul waxtu fa ñenn ci ñi nga xam ni wax dëgg yàlla damaa xamut ngëlëmte wala soxor wala jànnaxe wala dox moo leen jàpp bokk na ci bu ñuy ŋàññi Cheikh Nasr ci lii bokk na ci seen i addila yi ñuy sukkandiku di wane ne moom amul benn diplôme amul benn diplôme amul i sëriñ tamit loolu yàgg na la dégg ay nit di ko xasee Cheikh Nasr al Albani ñaar yooyu benn bu ci nekk danaa ci tontu insha allah tontu lu mat amul i sëriñ njàngam soriwut balaa ma koy tontu damay wax Cheikh Nasr al Albani moom ci boppam bi ko abi Ishaq laaje ci kaset yi may wax ni ko waaw lan moo tax sam njàng continué woo ko ba ay licence ak ay maîtrise ak defes ak bagak yu demee mu ni ko loola day am na sabab waaye sabab sama papa la mën naa ko ko askane ramyatun min gayri rami sànni wu ni kàccet dal waaye kaka sànni mën ko sànni Cheikh Albani ku ku ku yeewoon la ku mën a wax sax ramyatun min gayri rami xam nga tey mën na maa jël jëg man jubuma loxo waaye mën na maa sànni jam ko tamit mu ne bàyyam nag lii mu def muy dagg gi mu dagg njàngam te yeggut sànnu sànnu dal la waaye ka ko sànni du sànni kan loolu lim ci nam mooy bàyyam dagg gi mu ko dagg gisoon na ci lu rëy loo xam ni njëriñ lay doon ngir nekk Cheikh Nasr Cheikh Albani mu ni su ma continué woon ci jamono joojee nga xam ni moom laa doon jàng di wut ay diplôme mu ni laa shakka ni duma xaaja mel ni nii ma mel tey ci xam-xamu xadiis mu ne awma lu may werante nag dàquma timit ni njàngum académie yooyu yu baax la day jural nit ak yeewu te surtout koo xam ni nar naa liggéeyal l'islam ëllëg waaye mu ne ku am bët ngay seetlu ña ca jaar ñëpp yem ca buñ dee téeméer bu nu génnee ña cay jëriñ l'islam comme li albani jëriñ l'islam du du bari loolu yaakaar naa moom jër sax andil ay addina gis nañ ko suñu ba mas namaa dégg Cheikh na docteur Mouhamed Ahmad Lo di netti lu mel noonu ci farq bi ne ci diggante njàngum majalis ak njàngum école ndax njàng moo xam da ngay ñëw ci sëriñ bi jàng téere mu jeex nga jàng beneen ngir bëgg a dégg diine pour jariñu jariñee bokkut ak njàng moo xam ne yaa ngay séentu certificat wala nga sax wala yu demee noonu xam ngeen bokkut man mii jaar naa ci wax dëgg yàlla daanaka na ngay jàngee du bokk dañ doon jàng pour mokkal jàng pour am diplôme kese daanaka guddi gi yëpp da nga koy carrière pour lan bul échoué ci examen jeex na donte nag loolu tekkiwul dañ cee wax ni ñi koy def ñëpp loolu mooy seen yéen dama laa bëgg wax loolu mooy li ci ëpp Cheikh Nasrul Albani bokk na ci li mu wax mu ni ci nga xamante ni bëgg naa teqi jéego yu rëy jëm ci xam-xam la shakka ni yoon wii mu jaar moom bokk na ci yoon yi koy gën a dimbali mu ni bàyyam bi mu gisee ni école yi gouvernement bi daanaka liñ jox cër ci l'islam taxu koo bari lool seeni xóotal ci xam-xam taxu koo demee noona tamit ca jamono jooja mu ni ca la bàyyam gis ni ci majalis yi ci la gën a mën a amee lim mën a am moom Cheikh Nasr moo tax mu daal di koy génne ca njàngum école ya dugal ko ci njàngum majalis nee na noonu ci la tàmbalee nag di sàkku xam-xam kon Cheikh Nasrul Albani mu ni ci la tàmbalee sàkku xam-xamu xadiis tàmbalee sàkku xam-xamu fiq donte fiq bee jiitu ndax fiqul ahnaaf bokk na ci li mu jekkoon lool ndax kaana xanafiyan ka abi Cheikh Nasr kaana xanafiyan baxt fi muqaddimati amri tabaan li madhabi abi bàyyam la fekkoon mu nekk ab xanafi boo xam ne mutaassibun jiddan bàyyam moom xanafi bu tar la woon boo xam ne ak taraayam ci ak xanafiya daa jéggi dayoo noonu Cheikh Nasr mu ni ci laa tàmbalee jàng ci sama papa lu mel ni fiqul ahnaaf jàng naa ci moom sarf jàng ci moom naxwu jàng ci xaritu baayam bu ñuy waxee Saïd Burhani nee na kooku jàng naa ci moom fiqul xanafiya bokk na ca téere bu ñuy wax maraqil falaax sarf nuuri iidaah mu ni jàng naa ci moom lu yàgg ginnaaw si ci laa xam ne ndëkkate yoo sufiyanke piir piir piir piir piir loolu Cheikh Nasir nii la koy waxee mu ne jàng naa ci moom lu bari waaye ginnaaw bi ci laa xooli mbiram gis ni ndekete yoo kii sufiyanke biir la Cheikh Nasrul Albani mu ni jàng na ba léegi ci waa jooju Saaj Burhaani yenn téere yi luga yenn téere yi balaaxa yi xewoon ci jamono joojee nee na tamit alquran jàng na ko ci baayam ba ci baayam la wàccee alquran xibdan wa tajwidan ci baayam la ko jàngee moom Cheikh Nasr al-Albani nee na ci jamono jooju téere téerewul mi ngi jàng méccim muni ñu bari dañoo jàpp ni Cheikh Nasr méccim defar montre rek la amoon déedéet muni la jëkk a nekk nee dafa amoon benn ndejaayam ak benn syrien boo xam ni baayam da ko boole woon ak moom kenn ku nekk def na ci yow ñaari at muy ñeenti at di jàng métier moulide demoon na ba qualifié ci man ko lool sax ndax dëkkuwaay yi ñu ngi ko doon defaree ci bois mu ni jamono jooju da doon ànd ak ñaar ñooñu di liggéey kon foofu ci laay waxee ñi nga xam ne dañuy wax ni Cheikh Nasrul Albani njàngam paasewul cycle bii ah foofu man li may wax mooy su fekkente ni ku sam njàng àggut ci am diplôme yii ni albani ngay mel damay wax ni kon saya boo université seen bunt ndax wax ji la am dama ne su fekkente ni ki ay diplôme am bëriwul ba mel ni albani jaarul foofa fee la jaar ñu ni ko amooy diplôme di ko ko xasee su fekkee ku amul diplôme nii lay mel damay wax ni kon jërëtul université di ubbi ay buntam di jàngale mën na kaa kon loolu lenn la ci tontu wax yooyee kon mbokk maa ngi junj ñu arrêté ba julli ba incha allah salaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajmain kon ni ñu ko junjee sànq Cheikh Nasir Din al Albani rahimahullah ci tàmbali ak ndawam wax naa ni doon na boole métier monide ak njàng yi mu ngi nettali ni kenn ci ay najaayam ku tudd Ismaayil dafa la ko papaam boole loon mu nekk ak moom ñaari at am na keneen koo xam ni mi ngi tuddoon abi muhammad mu ni moom it nekk naa moom ñaari at ba man ci métti ma lu bari kon maa ngi taxawoon ci tombab leeral ni ñàkkul ñenn ñu ngeen dégg ñuy ŋàññee Cheikh Nasr loolu xëy na kay nit ki dafa bëgg ay ndëgër laay di sukkandiku ci loolu di ko boole ci ay layam waaye laa sakka lii ma tut lay ndax mbir mi nekkul bari ay diplôme waaye mbir mi mi ngi nekk ci dogu ak sellal aminu xam-xam loolu rek la wallahi nit am na ay diplôme yu kawe lool lool nga mën a gis koo xam ni bërëb sax amul ci moo ko sut fop ci xam-xam gën ko koo setle gën ko ko wér donte nag dàquñu yële yële sax nag moom aw yoon la te mooy sax yoon wax waaye dañuy dànkaafu nit ñi tamit ñu bañ a jàpp ni foofa rek mooy yoon déedéet kon njàngin aju ci ay diplôme waaye mi ngi aju ci dogu ak sellal awu ci kon Cheikh Nasir laa laa sakka ni am njàngam soriwut ci bu dee biirëb école waaye bitib école nag foofu it nee naa su nekkente ni képp ku jaarul jaamia nii ngay mel moom bu yeboo jaamia tëj bunta amma bu dee amuli sëriñ moom li ma jot a junj rek su ma ca yemoon dafay daal doy sëkk firnde wane ni ñooña la ñuy wax wérut jàng na ci baayam te baayam kaana marjian fil fiqhi l xanafi kàggu la woon delluwaay la woon ci fiqhul xanafi ci jamono jàngal nañu bari bokk na ci ku siiw ku nu xam da cee gën a siiw rek moo tax ma tudd leen ko ndax su ma ko tuddee ñàkkul ñu mos a dégg turam monsieur Abdul Qadir al Arnaout donc bokk na ci ndongo yi nga xam ni jàng na ci papay Albani amma wax gi ñuy wax ni Cheikh Albani amul sëriñ dëgg-dëgg damay wax ni kaburat kalimatan taxruju min afwahi haulaai in yaquluna illa kalima dëgg-dëgg lii ëpp naa génne ci gémmiñ ndax du dëgg wax du du wérut la bokk na ci lay wan ni wérut wax naa ne Cheikh Nasir jàng na ci papaam ci papaam mooy ki ma la wax sànq ci moom la jàngi alquran ba jeexal ko jàng na ci moom luga jàng ci moom sarf jàng ci moom balaaga jàng ci moom fiq am na téere ci seen delluwaay yi bu ñu tuddee alqudur yi alqudur yi booba Cheikh Nasir mi ngi ko jàngee ci baayam wa kadalika xaritu baayam boobu ma lay wax Mouhamad Saïd Burhani jàngal na Cheikh Albaye téere bi ma junjoon tànk muy maraqil falaax muy téere bu am solo ci fekkul ahnaaf ak suduru zahab kooku mi ngi wax ci wàllu naxu wa kadalika yenn téere balaaga yoo xam ne ci yu jamono yu dëppoog jamono ja Albaye doon dund jàng na ko Cheikh Mouhamad Saïd Burhani wa kadalika Mouhamad Bahjud Albaytar donte am na ñuy wute jàng na ci moom jàngu ci ma waaye soxnaa ko ci làmmo ñi boppam dafa wax ni doona teewee xalqaam yoo xam ne ay boromi xam-xam doon na ci sa waa jotul jàng ci moom loolu moom la waxal ci gémmiñam donte lenn ci ay ndongoom ku mel ne Ali Xasan moom am na tarjama bu mu defal Cheikh Nasir moom la mu wax mooy jot naa jàng ci moom laal la xëy na loolu tuddee jàng wallahu aalam kon damay wax su ma tuddee ñii gese ni kenn ku ci nekk jàng na ci yow lu ëpp ñaari téere ba ñett ah su fekkee ku def lii de amoo ni sëriñ man day ku am ay sëriñ maa ngi lay ndokkeel kon su nekkente ni Cheikh Nasir al Albani rahimahullah ñii mu jot a jàng ci ñoom nga xam ne kenn ku ne ci ñoom lu gàtt gàtt jàng na ci yow lépp ñetti téere ci ay funuun yu bari te ñii ñenn ñi la tudduma ñëpp ñim jàng ci ñoom soo demee ci ay taraajumam am na tarjama bu mag boo xam ni benn ndongoom Muhammad ibn Ibrahim al-Shaybani moo ko def tarjama bu mag la boo xam ne ñaari mujallad ci dundu Cheikh Nasir tarjama boobu boo ci demee te tarjama boobu sax li gën a yem mooy ci dundu Cheikh Nasir la ko def moom def na ko dundu Cheikh Nasir jox ko Cheikh Nasir xool ko vérifié ko wax ko tey xalaatam delloowaat soo ca delloo da nga ca gis lu ëpp lii ma lay wax ci wane ne Cheikh Albani ku am la mu sax ay suuf waay waay waay ku amul sëñ boo jëlee xam la chaque ne mbir mi nag nangu nañ mayug yàlla nag waaye du lu muy sole de du mbir mi lu muy sole mbaa loo xam ne si day toog fële rek di ko taxalaatu xëy rek toog di ko jàngale du noonu de mbir mi du loo xam da nga jékki-jékki taxalaatu ko wala nga jàngal ko sa bopp jàngal sa bopp amul ci lislaam al ilmu yuxadu ala afwahil ulama xam-xam moom ci gémmiñu borom xam-xam yi rek la chaque ni boobaay bu set ba su ko nit ki deful fikk newu ci ni la muy indi ci ay njuumte mooy ëpp foofu la muy indi ci ay defar defar kon Cheikh Nasir baayam jàng na ci moom lu bari waaye baayam kaana xanafiyan mutaasiba xanafi la woon boo xam ni dafa taroon ba xam ngeen ni léegi sax yu mel noonu daanaka feeñatu waaye taraay gi dafa yeggoon ci ba ki ab xanafi la ki ab shafii la ki ab nangam la taraay gi day yegg ci léeg-léeg am na ci jamono yoo xam ne tar gi yeggoon na ca bi jàkka ji ba ab shafii day jiite man du ma julli ci ginnaawam jàkka ji ba ab xanafi day jiite man du ma julli ci ginnaawam loolu demoon na ba ay jamono di am loolu bokk na ci masala sax yi jotale Cheikh Nasir ak baayam amma jariñu gi mu jariñ ci baayam mooy comme li ma la wax sànq bokk na ci Cheikh Nasir nee na ku yàlla defoon mu bëggoon liir la ak bëggoon liir nee na mbir yoo xam ne jërut liir sax ñàkk lu ma liir daana tax ma di ko liir day nettali benn téere boo xam ni ab sàcc boo xam ni ci waa Amérique la bokkoon sàcc ba wala téere boobu ñu ngi ko tudd Arsène Lupin Cheikh Nasir muy téere yi ñàkk fayda yi sax jot naa koo liir ndax ñàkk lu ma liir mu ne lu ne liir naa ko Antar ibn Shaddad ak i wayam ak i waxam ñoom Farazdak ñoom Jarir ñiy jàng adab ak luga xam nañ li may wax ñooña seeni bind liir na ca lu bari mu ne ginnaaw bi nag ci la ma yàlla commencé gindi ma dem bay liir li ay yi gën a am solo yooya lu mel nii taarixul islam di liir yu mel nii qissat Salahuddin al Ayyubi yi nga xam ne moo defoon fat bayt al maqdis say jamonoom ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne moo koy xëcc di ko gën a jegeel Cheikh Nasir kon jot naa jël ci ñooñu ma la limal sànq xam-xam waaye taxut mu doy loo loola doon na continuer di gëstul tamit boppam di dolli ca lam am ndax it gëstul sa bopp it kenn dàq ko waaye nag dañuy wax ne bala ngaa dox da ngaa ami tànk yu dëgër la chaque ni doo doo doo toll ci raam ngay damay dox waaye da ngay bàyyi ñu lay jàpp di la teete ngay dox di sukkandiku ci nit bu yàggee da nga dem ba mën a doxal sa bopp loolu mooy da ngay jaar tay borom nga xam-xam ni dana teetee su yàggee da nga dem ba yow kat liñ naan xam-xam bi bët bi bënd na danaal ji bënd Cheikh Nasir Albani bokk na ci li muy lim ci ndawem di ko tuddee xéewal yàlla bokk na ci moom mooy nettali ba léegi mu ne xéewal de yi ko yàlla defal bari na lool ba mënu koo lim waaye bokk na ci yi ko ci gën a marqué ñaari mbir bi ci njëkk mooy toxu gi bàyyam toxoo Albanie ñëw Cham ak jàng gim jàng méccam horloge mu ni toxu gi baayam toxoo Cham fële Albanie ñëw Cham nee na sabab la ci njàngum arabam te njàngum arabam mooy sababu bënnam ci xam-xamu xadiis maa ngi yaakaar ni su ma toogoon fee duma ko am kon loolu tax ma di ci sant yàlla méccam horloge mi nag mu ni dem naa ba qualifié ci ba xam ci lu bari te Cheikh Nasir ku yéeme woon la sama sëriñ Aboubacar Seck maa ngi fàttaliku ay jamono may nettali ci Cheikh Nasir dugg na ci jàkka dafa xalqa ba noppi ñu ni montre jàkka ji dafa yàqu mu defar bi mu ko defaree ba noppi da ko wékk ni leen bu ko kenn laal fii ba suba ca suba si ba mu ñëwee da koo xool rek ni leen laal ngeen gaa yi jàkka ji ñëpp kenn laalu fekk effectivement gardien bi moo ñëw mu ne maa ko laal dama doon xoolaat dafa dikk rek ni ko yéen xool montre bi ni montre bi laal ngeen métier mi da cee fooroon lool mu ni dem na ba bi ba bàyyam gàddaayee métier ma mënoon na ci ba dafa mel ni clients yi dañ doon mbëkkante ci buntu kantinam bi mu beroo ndax man gu mu man métier mi mu ne loola bokk na ci li koy dimbali ba mu mën a gëstu ci xam-xam xadiis kon yooyu bokk na ci xéewal yi nga xamante ni doon na ko santee borom subhanahu wa taala waaye am maa jëmmi nag xam-xamu xadiis nag bi Cheikh Nasir di am ñaar fukki at am nañu ne ñaar fukki at am nañu fukk ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar soriwul foofu diggante fukk ak juróom ñaar ba ñaar fukk daal xam ngeen ni ak bu mu ci mën ci doon teel ak bu mu ci mën a doon rek baax fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk diggante boobu ay wuute am na ci ban at la ci tàmbali gëstu ci xam-xam xadis tàmbali ci nekk fóore benn bi Cheikh Nasir bokk na ci mbir yi ko gën a marqué am na benn borom xam-xam boo xam ni Cheikh Nasir xaw naa jamonoon teg moom ñu koy wax Taha Hussein benn bis Taha Hussein da doon def benn muxaadara ak guddi mu def muxaadara bi ba noppi wax ca ay wax yoo xam ni damaa teewlootu laal la laa ilaha illa allah laa ilaha illa illa al madda xaw ma nu mu tuddee laa ilaha wal kawnu màdd laa ilaha wal kawnu madda xaw ma tem bu doy waar sax fekk ci biir mbooloo ma benn mën naa ko tuddee ab borom xam-xam wala ndongal xam-xam lu ñor ma nga fa koo xam ne moo jiite woon majalatul manar muy Mouhamad Rachid Rida Rachid Rida déglu muhaadara ba mu jeex mu am lu ko metti lool ci guddi gi moom moo jiite woon journal bi ci guddi gi ci la daal di bind ay tontu conférence biig ba xëy génn ko ci journal bi tontu ya bari lool ñor lool am solo Cheikh Nasir di xool waaw kii liggéey l'islam ñoree ko nii conférence bi am biig tontu yi ni mu ñoree ni mu dalee ni mu baaxee mu def ko biig bi génne ko tay tay lii daal ko amul himma mënoo Cheikh Nasir mu ni lii bokk na ci li ko gën a soññ ci xam-xam xarit ñaareel bi benn bis dafa liir ci majalatul manar benn partie boo xam dafay wax ci ab téere bu ñuy tuddee ihya ulumuddin imam Ghazali moo ko bind foofu na damay leeral ni bokk yu bari soo ne ihya ulumuddin rek dañ naan nii wallahi téere bu am solo la ay mbir yu am solo nga ca d'accord nangu naa nit nag ay njuumte yu baree nga ca waaye nag ay mbir yu am solo nga ca Cheikh Nasir mu ni bi mu dikkee ci majalla bi mu gis Mouhamad Rachid Rida mu ni su fekkente ni nit ki bu la defalee njekk wala su amee tawfiq gu la yàlla defal ci loxol nit la ko jaarale war nga koo sant mu ni Cheikh Nasir man de war na maa sant kon Mouhamad Rachid Rida mu ni ndax bi ma gisee majalla bi ma liir muy wax ci Ihya Ulumuddin di ci nettali di indi ay muaxasaatam ci lenn ci ay mbir yoo xam wax dëgg yàlla day war ni kii ab sufiyanke la di wax wax yoo xam dëgg dëgg kenn xamu ci yi moom fu bopp ba féete fu bopp genn ba féete ñaareel ba ay xadis yoo xam dafa daif mu ñëw ci Muhammad Rashid Rida di ko taaliq di leeral di wax ay wax Cheikh Nasir mu ni bi ma ko liiree ba yegg ca jeexintal ba gis na ca ñu ni am na téere boo xam ne spécial dafa jóg ngir leeral njuumte yi nekk ci Ihya Ulumuddin muy téere boobu nga xam ne alxaafid al iraqi moo ko taalif te alxaafid al iraqi bokk na ci sëriñ yi nga xam ne jàngale imam ibn xajar rahimahullah mu ni bi nga xamante ni liir naa ba yegg si ca loola mu gis ca ni maanaam am na téere boo xamante ni spécial mi ngi tudd al mughni fi xamli l asfaari fi l asfaar am ta lu si topp بتخريج ما في الإحياء من الأخبار subhanallah borom xam-xam yi seen turi téere yi da lay wan ne ñii ñu ñu ñu bàyyeeku woon lañ ba jeex tàkk ci xam-xam
al asfar kàggu yaa ngi nii al mugni lu doy sëkk a ngi nii fii xamlil asfar jël ngay kàggu téere yu bari booy tukki fil asfar ci tukki yi tey booy tukki boo nekkee sa kër ñi ngay jekkoo kàggu yi du bokk ak boo nekkee ci tukki bi mu ne lu doy sëkk ngi nii pour boo nekkee ci tukki ba du jar ngay gàggu kàggu yu bari pour man laa leeralal li nekk ci ihya ulumu diin ci ay axbaar allahu noonu ngay gis ku mel ni al imam al dahabi bokk na ci mu jënt lu dul doon taarifu téere bu am solo bi mu ko tuddee sayyidul jarrar al mutadaffiqi ala hadariha iqra imam shawkani aywa imam shawkani sayyidul jarrar al mutadaffiq ala hadariqi al anhar téere yoo xam ni yow boo boo xoolee titre bi rek yow da ngay yàkkamtee niir la ne ci biir ndax tur bi rek ka jëkk am solo ak lu njëriñ nee na bi ma gisee loolu muy téere boo xam ne ñu ngi koy askan a xaafna al iraqi mu ne ma daal di jawle ci jaaykaay téere bu jënd ko ma al asaf mu ne boobu faqir la boo xam ne lu ma jëndee koy sax boobu koo xoolaa téere sama bàyyi ma yaakaar pour ñaan ko tamit kadaale nan la Cheikh Nasir def doogu gi mu jàngoon ci Mouhamad Rachid Reza ak doogu yi yi mu yi mu jot a gis ci ñi ko jàngal tax na mu ne téere bi da koy photo da koy da koy da koy recopier ak loxo subhanallah téere boo xam ni mën naa ni xanaa mat na ñaar téere bii ma yore muy da koy toppaat ak loxoom di ko bind toppaat boobu ak loxoom di ko bindal boobu ngir amul lu ñu ko jëndee bokk na ci liggéey bi njëkk bu ñu xamal sufnance tahzir as-sajid boobu ngeen di dégg njëkk koo taale donte lii nag moom tuddeewu ko taarix sax ay toppaat ak ndax da ci ay taarixaat rek